délégation yi nga xam ne mooy joge Espagne di ñëw Bargny ñu naan gaal gi feeñ na bu ñuy wax nañu wàllu wér ñi ñi tiit nañu jaale nañu kenn xamul fu ñu féete instant yi 18 personnes la mu ñu nekk ci commune Wadène xool sa grand di waa tamit man il est ma bëree ko waa Modou Mbaye. da ngay bëre man làmb dama si bokk damaa war a bëre. da ngay bëre di profité di sant waa Bargny di sant grand Moussa Gueye di nga wax na jël avance ba bëre ku mel ni Mamour ku mel ni Ibrahima Aïssa masala maire comprendre nga ba si wës Abou moo ma solal nii. sama soxna tamit mooy loolu jaaratu. macha maa ngay siyaar bu sama goro yaa Binta. di nuyu waa Jam ñaajo di nuyu suma mbokku mbër yëpp. Modou Mbaye di nuyu bu baax di wax tamit El Hadj Ndiaye. waaw na ma fay sama image. waaw parce que image bu rafet laa ko defaral. El Hadj Ndiaye waaw dëgg la. dañ ma fay sama image dañ ma koy fay bu nekkee yàlla waaw di nuyu ñi nga xam ne dañ may jàppale yëpp surtout Bargny. ndeysaan Bargny nama nañu làmba nama nañu bomba mais dañ si jafe-jafe nekk si jaaxle. dama bëgg képp ku ma dégg nga ñaanalal ma ñooy ñu benn jàmm tey bi oustaz maa ngay ñaan si barke yaa Rasulullaay maa ngay ñaan si barke sëñ Ba maa leen di sant di leen gërëm di ñaanal si da tamit yàlla may ka ndam bu sedd buy jaajëf jaajëf kontaan naa ci yow kookoy Papa Sow ak Modou jàkkaarloo nan aj macha allah mbokk yi gis ngeen ambiance su lamb jaa ngi noonu. ndeysaan Siteu mi ngi noonu ànd ak Reug Reug ndeysaan xam nga nag ñi ànd ak mbër yi léeg-léeg dañuy xër ba waaw waaw urat kis sal urat kis waaw waaw vous nous suivez en direct sur la 2STV wuyu leen lii gaa eh, eh, eh. yi Moussa Ba yaa ngi ñëw ya waaw ah, ok <laughs> macha am na solo HBK ñu ngi toog ak uh, sunu père Ndiouga Dia moom kenn dootu ko présenté ci làmb Ndiouga Dia bu Fass Ndiouga Dia bu Parcelles ñu ko jàpp papa yi xale yi nga xamante ne ci parcelle di bëri tey ñu ñëwaat encore une fois sa doom say doom woote jàmbaar nga gis saa bu nu wootee rek arène bi am melokaan ci ambiance am melokaan ci waaye am melokaan ci ci fair play tey lan wax ci bis waaw loolu mooy sant la bi sëñ Mouhamed di kontaan ci sa bopp bekay may te xam na làmb amee ay lu bare bare bare su du woon Bécaye Mbaye ak yeneen ñu mel ne moom dafa naa làmb du génn Cap-Vert waxuma la Sénégal waxuma la ci diaspora bi kon Bécaye Mbaye suy na ci grand tour